السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسأل بدر أسأل بدر واد بروم فيديو بي لوم بغا واخ علي بدر بورا خامي تي اهل السنه والجماعه لا بغا واخ ньоญو كين يين ني ديغو كين جومي لين كاي لين جومي مسغا فكي واجي فني رندي دو يوبو تي خريم تاليف اكو كين مسكو تي فكي خاص ما نك في نام مانغلي بام وات اي دا ما يكان اي دا نكو فاتي القران نينا نيوم سيدي حاج لولا اذ نيوم سيدي توبا نيوم شيخ عبد الله ظن نيوم شيخ عمر والمؤمنات بانفسهم خير من يس وقالوا هذا مستوبين دوغل لي انت بن كم نعم، انا لو القران لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اكيد واحد لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون بيما جابليون بيون ولولا اذ نينا موادف الكيد كي مو يوري maa yakunu lanaa an natakallama bi haadaa subhaanaka haadaa buhtaanun aziim dégg dégg ngeen li mu wax nee na buhtaanun aziim fii daba yaa ko wax yéena nga xam ni tur yi yéen yaakaar naa yéen ñi seetaan vidéo bi yéen a ngi koy soog a dégg dëkk Washington boo demee musta ñëw Afrique muy def ay recensement am nee na Sénégal cinquante huit pour cent pour cent Sénégal yéen li du tuuti du lu tuuti kooku nee na cinquante huit pour cent Sénégal dañuy rendi dañuy rendi di jox ay xërëm dañuy rendi di yóbbul ay raw xaan loolu bu amoon ak lii bu amoon ak maandute est-ce que kii kum kum jiite am nga julli pour man kum jiite am parce que amul maandu amul maandute parce que lii def ko waroon a weddi parce que moom mi ngi koy dund moom mi ngi dund senegal te wóor na ma moom musta gis ku koy def Souleymane Badiane loolu mosoo koo gis mosoo gis ku rendi di yóbbu ci xërëm ya musoo gis kuy romb kuy kuy rendi di yóbbu ca rawxaan ya sëñ Modou Mbacke Téré mosoo gis loolu Alioune Badara mosoo gis loolu Omar Sey mosoo gis loolu kon bu fekkonte ni cinquante huit euh, pour cent ci sénégalais dañuy rendi di yóbbu ca xërëm ya di rendi di yóbbu ca rawxaan ya moom mu gëm loolu kon kay dañ jax ni li mom mo nek ci xolam li mo nek ci xol ba mu gëm ko gis aw kay wu jóge washington kiko bind amul lu muy tuddu lu dul pew dabe yo pew nga gëm ko wedd seydi xaaji malik radiallahu anhu wedd cheikh ahmad bamba wedd cheikh omar al fouti wedd cheikh abdoulaye niass xoolal ñu baax ñi nga wedd leen daal di gëm dem gëm gëm peewu lu peewu wax ngalem diko deugal imam alquran neena lawla il sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين وداري ماغ نيغا خامني تي اهل السنه والجماعه لا نبو القران نين نين لا باغا ديغي لول باغي كيسي كو خامني سي لو تخ مونا نيوخ تي ساي مبوك سي ريلي دو يوبو تي خيرميا كو نغام نيوخ تي فيم لو باخ ni Sénégal Seydi Hadji Malick mi ngi fi aay bi dama yaakaar aay bi da nga ko fàtte Cheikh Omar Fouti mi ngi fi di yare di yare lawla Cheikh Omar mi ngi foon di yare Cheikh Abdoulaye Niass mi ngi foon di yare wal mu'minatu bi anfusihim khayra lu baax daal ni hada ifkun mubin lawla jaawu alayhi bi arbaati shuhada fa id lam yatu bi shuhada lawla jaawu alayhi bi arbaati shuhada loolu wax loolu fa id lam yatu bi shuhada fa ulaika inda allahi hum kadibuna qultum imam ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ما يكسي كي ما عظيم يا سكوهين دو دق أي فن لا لو إمام وخلولو نغرم يكتي أو كي وخم دبليو بان بان خون خون من كي يخزن دبليو بان موم قدم قمكو نجير بقى ويد سيد حاج مالك خلال خلال سيد حاج مالك لنمو صنّي ni serigne touba sone lu nañu daj ko di yar talibé yar njabot cheikh mal fouti jihad cheikh abdoulaye niass xol ñi son bas ba dem nga ni 58% yépp nan lañuy def dañuy rendi di yobul ay xërem dañuy rendi di yobul ay rawhan ana kan mo mësa gis lolu kan moko mësa gis parce que 58% moy lolu mo upp kon 42 pour cent yi képp ñoo ko def te 42 pour cent yi ñu dul jullit te duñ def loolu ña nga ca kon li bëgg a wax mooy kon yi 58 euh, pour Sénégal ci pour cent Sénégal yi seen aqida wérul ñoom la seen aqida wér attention nag ñooñu ñu naan seen aqida wérul ñoom ñoo maye woon sëy ya sëy euh, sëy yañ maye woon ba ñoom ñu juddu ci ñooñu nga xam si. ñoom la seen aqida wérul ñoom ñoo maye woon sëy ya te ku sa aqida wérul boo mayee sëy sëy ba wérul boo seedee sëy sey ba wérul kon bu boobaa ñi ci juddu ay doomi njaalo lañ kon képp ku jàpp ni mag ñi seen aqida wérul yow doomu njaalo nga parce que mag ñi ñoo maye won sëy yi mais euh, weddi Sidi Hadj Malick dem gën gëm dabal yoo peew di loxal baatam naan këy këyit bu doy waar a ngi nii te ki ko wax du jullit ki ko wax dëkkul ci rew mi ki ko war ki ko wax dëkkul ci continent bi yow alquran wax la nga dal ko fay tek alquran neena la لولا إذ سمعتموه يا إمام ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم anfusihim xayra nga xam ne ci ëllëg kenn na waaw kenn kenn koo xam ne te imam ba nga gisee kayit bi fekke nga am rek seen mbokk jullit yi ngay dundal kenn mosu ko ci fekke nga nga njort ci ñoom lu baax daan yi dama yaakaar aay bi da nga ko fàtte te boo ko waxee da ngay am gis parce que yow yaa dëkk Sénégal lawla iz sami'tumuhu ولو لولا إذ سمعتموه يا والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا وهي أنت تتكلمت بهذا القرآن يقول لولا يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم كاذبون هذا هذا اللي إمام. قاله هذا الإمام ولولا إذ سمعتم عظيم قلتم لموح. ما يكون لنا بك. أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ما, ما قال لأخيه المسلم يا عظيم فقد يم بأحدهما بوانا يسمبوكم جليت يفر ين يعني أنك تيفر مي نان غي جابي سينغال ييب 58% nga tam len ni ni sen akide wirul te ñom ñomay won sey ba ba yeen ngeen mais kon yeen lu yeen don, legui nak dégg naa ci muju waxam tim muni dañ leen di tumal ni ñom dañuy contre mag ni te ñom alquran ak sunna lañuy doxal kon mi ngi mel na kon ñi ngi tumal mag ni parce que mag euh dafa mel na kon mag ni doxaluñ alquran ak sunna manam ñun bu fekkente ni gem nañ ni mag ni alquran ak sunna lañ doon doxal kon ñu wax ni ñom dañuy contre mag ni parce que ñom alquran ak sunna lañuy dohal, doxal déedéet du lolu ñom dañu ni dañu mag ñi dañ doon doxal alquran ak sunna ñoom ñu weddi leen bu fekkonte ni gëm nañ ni mag ñi alquran ak su moom bu gëmoon ni mag ñi alquran ak sunna lañuy lañuy doxal du defar du defar du taalif téeréem boobu téeréem boobu maanaam saaga na ci Sidi Hadj malik sëñ Touba euh, Cheikh Abdoulaye Niass Cheikh Omar Fouti te ñoom bu fekkente ni gëm nañ ni ñoom alquran ak sunna lañuy doxal kon kay du leen tudd yooyu tur du leen junj yooyu junj waaye man munuma d'accord nga gëm gëm dabalion dabalion peewu ca Washington weddi Sidi Hadj Malick weddi Serigne Touba weddi Cheikh fuuti Fouti weddi Cheikh Abdoulaye Niass ak ña nga xam ni ñoom la ñu yar dem gëm peewu man say wax mënatuma ko comprendre loolu moom kenn xamul lii mooy léegi nag euh, li des mooy yéen ñi déglu def leen seen recensement nee na cinquante huit pour cent ci Sénégal dañuy rendi di yóbbu ci xermiya dañuy rendi di yóbbu ya. kan ci rawhaniya mais yeen kan mo ci mësa gis lolu suleyman bayan foko ko yow ndax mës nga gis loolu eh, Oustaz Ali Niang ndax mës nga gis kuy rendi di yóbbu ci xërëm ya sëñ Modou Mbacké te ndax mës nga ya? ya? gis kuy rendi di yóbbu ci xërëm ya Ousmane mbay ndax mës nga gis kuy ci rendi yóbbu ci xërëm ya yow Mohsin Samb ndax mës nga gis kuy rendi di yóbbu ci xërëm ya ndax ngeen gis lolu mës ko gis fenn légui nag mu ni te mom bu ngeen gisee imam ni muy waxee daf ko gëm parce que mi ngi tit wala ni tit wala lox te jublu xam nga num ci djublu kalimatu haqqin urida biha batil xam nga mi ngi wax lool dafa tidlu mais lim ci djublu moy num wañé wàññee aqida nga xam ci ahlus sunnah wal jamaa lañ wañi si aqida ñooñu kenn amu ci kenn jàpp ne cinquante huit pour cent yooyu fekke sen aqida fu ñuy rendé du yobu ci xërëm 42 moy ñom mais bu boobaa nag imam maa ngi lay baamwaatal ay ñoom daañu wax ñoom ay doomi lañ lañ alquran nee na parce que mag lawla iz mag ñi nga xam si ñoom la seen aqida zannal ñoom ñoo si ñoom maye sa yi bi am fusihim ñoom ñoo seede sa yi wa qaalu hada ñoom ñoo seede sa yi ba ñoom ñu judd ci imam ana loolu ñoom ñoo seede seeni sëy ba sëy ba jaau alayhi ba kon bu fekkente ni ñoom seen aqida wérul fa id lam ba ñoom cinq shuhada yi fa ulaayka inda allah ba pare li gën a ñàkk a nekk maamute ولولا إذ سمعتموه قلتم آه، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم بي دبليو بيو بهتان عظيم إني وخم سخل يا كوكو تساري تيربي تساري تستسيد حايز مالك dañuy rendi du yóbbu ci xërëm yi man daal maa ngi laaj képp kuy dégg sama audio bi na ma wax na ma wax moom ñaata yoon la mës a gis parce que lu gàtt gat kenn ku nekk ci ñun war na koo gis lu mat fukki yoon ñuy rendi yóbbu ci xërëm ya man de mosuma koo gis te man yaakaar naa ñi nekk ci groupe bu daaree mag ñi ñi nga xam ne ñoom ñooy ahlu sunnati wal jamaa te du ñoom képp waa daaray mag ñi nga xam ne ci ahlu sunnati wal jamaa bokk ñooñu kenn amu ci kenn kenn koo xam ne si mës ngaa fekke fu ñuy rendee du yóbbu ci xërëm ya kooku kenn mus ko ci fekk kon nag imaam maa ngi lay baam waatal aaya bi damaa yaakaar ne aaya bi da ko fàtte alquran nee na lawla id sami'tumuhu ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين إمام أنا لولو القرآن لنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون إمام ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ما قلته بهتان عظيم يا كوكو يم